ñi ngi leen di nuyuwaat di leen ziare di leen ñaanal jàmm di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun ginnaaw bu ñu bàyyi ko ci cérémonie officielle bu am solo boobu nga xam ne amal nañ ko ci teewaayu kilifa yi ak lenn ci waa Daarul Moxti ak ñi nga xam ne it ñooy waa dëkk bi amal cérémonie bi waxtu waxtaan wu am solo ci biir loolu it xam ngeen ne kii ngeen jàkkaar lool muy Serigne du Mara sekk di jànkatu xasida boo xam ne kenn dootu ko présenté ci àdduna bi rawatina ci Sénégal rawatina dëkk bu sell bi nga xam ne aussi moom moo di Touba euh, ci xereñteefam ci njàng mi euh, bëgg gum bëgg xasida yi gëm gum ko gëm macha allah ak sellal gum koy sellal doon koo xam ne it ñëpp safoon nañu ko xam nga ne dëkk bii doon dëkk boo xam ne kóllëre gum séq ak ñoom ci niñ ko waxee yàgg na mu doon koo xam ne chaque année moom mooy amal li nga xam ne moom moo di jataay bi waaye relation ak ki nga xam ne mooy Alaaji goro Seck it xam nañu ko bi muy nekk Sénégal moo tax it euh, ñu ñëw en yéene ànd ak moom ci kanam tuuti incha allah moom moo war a jàng-jàng yi waaye la tant que loolu rek dinañu ànd ak moom ci relation ak dëkk bi mam dalee door yëf yi ak léegi ci dëkk bu sell bii incha allahu taala yëkkatil ñu lenn ci ay bayti xasida su ko defee incha allah yaakaar naa dina neex ñi nga xam ne ñoom ñoo koy seetaan présentation bi ci kàddu gi seen mbokk Arouna Cissé la seex Seck a ngi noonu di rakk ci sëñ Gora ak jëwrin ji nga xam ne mooy jëwrin liggéey bi di ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Lay kon su ko defee sëñ Mouhamadou Mara Seck Touba Argentine TV ñu ngi lay wax salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki yi ni jàkkaarlool taalibe Cheikhul Khadim yi soppe yi yi ak borom yi ñu ngi leen di siyaar baax. di nuyu mbooleem ñi teew ci jataay bi ni nga ko waxee rek dëkk bi moom cosaan la lu yàgg la sama digg ak ñoom ndax bu ma juumut ba ma dooree xaside yi di yëngatu fii laa njëkk génn Touba ñëw jàng si fi budul 89 di 90 booba tey ñu sàmm kóllëre gi ma koy sàmm waaw waaw wallahi waaw wallahi ci laa njëkk 90 89 daal du ko sori fi laa njëkk a génn jóge Touba ñëw fi jàng si fi. waaw wal waaw vingt xanaa fanweeri at ko manqué. waaw ñaar uh, juróom-ñett. Uh, mu mel ni sàmm nañ kóllëre gi ndax alxuraan dafa wax ni. wa awfoo bil ahdi inna al ahda kaana da leen sàmm kóllëre ndax kóllëre suñu borom da ko laaj bu ëllëgee mu mel ni sàmm nañ ko waaye nu it na koy sàmm mm-hmm. ndax bu ma juumut uh, ban suñu borom boole ba tey Eh, li la war suñ digg ak ñoom ñu ngi koy dox waaye may li ma war sama digg ak ñoom maa ngi koy dox lu ne ci dëkk bi tama yëg ko naa dagg sama yëte ñëw ci ñoom lu am ci man tan yëg ko dana dagg seen yëte yëg ko mu mel ne kon seqatun jàng ak jàngalu eh, kóllëre moom lan seq loolu mooy rafetal ba egg si fii loolu nag bu sàmmoo ba dox tax kenn ku ne ci noonu foogut woon ni dana egg si eh, li ëpp solo ci àddina mooy rafetal te jëf ji ëpp solo ci àddina mooy ji nga xam ne bu nu koy nettali muy lu rafet te bu doon lu rafet ba noppi na koy nettali muy doon dëgg mooy boole gënu sunu borom boole fii muy dox ba tey jii ndax ban may jàngaloo dama leen waxoon ni lu ngeen ma jox baax na noonu laa doon doxee ak ñoom ba man nu yëkkati di ma ko jox bu ñoom ñu àndalawaat ak ñoom seen bopp ñëw fekk ma fii ma toog yàlla xam waxama ni ma lan lan lan wax yow kat. nga koy sàmm noonu dañ koo sàmm lan ëddiyee jën war la woon ak yow danoo fas yéene sëñ bi comme sëñ baa ngi lay dolli ñu noo ci dolli nangam nga xam ne du ma du lu ma leen wax ñoo ko waxal seen bopp. xam nga wolof dafa wax ni xar day weesu mboote waaye xar dana weesu mboote te ñam ko séq duñ ko mën a xam ndax kóllëre wala bëgg lu baax dana tax du leen ko mën a wax waaye ñoom ñu xam ne yow mii niveau bi nga nekk ak ma nga nekkoon wóote na. nu xam nit fu ko yàlla teg da nga ko fay teg nu ñëw fekk si ma fa foofu ndax man yàlla damaa nattoo képp ku ma sàmmal kóllëre la ma wax ak yow ci njëlbéen nga loolu laay sàmm la koy din du jóge ci man loolu xam nan ko ma xam ko ba tax na fa ma tàmbali woon ak ñoom ñooy xam ne man fii am na lu suñu boroom def ci man nu fekk si ma ci waaye kon bu ëdduna doon dox ba keroog kenn kenn ku ne ci noonu di wuji Sëñ Tuubaa moom la ma waxoon ñoom dama ko dindi kon nag yàlla nañ ko sëñ bi sàmmal te tey nu kóllëre gi sëñ Cheikh nu nga lay sëñ Gora Seck it suñ kóllëre ni nga ko waxee ndax bu leen yeblee ci man danaa sawar lool man yàlla daa dogal ak bi moo ma ñor lu baax ñor ma moo ma booleeg sëñ Gora Seck moo tax bi bi ma yebalee ci yéen ma sawar ci gis bi ma ñëwee man la toogal fi man ku ma gis jaf naa ne sans bopp ki yor sa caméra bi dama ko nuyu lu tax nuyu woo ma loolu wan la ne def naa leen saa bopp moo koy tax euh, bi ngeen ñëwee dama leen ni ngeen daal di egsi man du ma tëju kenn ndax xasida yi laa yor sëñ bee ko def ci man ngeen ngeen di soppi xasida yi di ko déglu gënuma leen amaana sama njariñ sëñ Tuubaa mën na ko denc ci yéen bu ma leen bëggalee sëñ bi defal ma li ma bëgg kon koo def gis boo ko defee ne sa bopp rek li nga bëgg mën nga ko am euh, ndax bu ngeen loolu woon déglu njàng du am jariñ yéen a ñuy déglu di fab seen rangoñ da ko tuur da jël seen alal dina ko jox kon war lan leen li ngeen di defal leen nan ko kon nu leen di siyaar baax di ñaan yàlla na suñ ba defal tawféex liggéey bi ngeen liggéey suñ borom defee leen ci tawféex li ngeen ci sàmm li ngeen ci wut lépp ngeen am ci loo kawe seen jortu ba kenn ku ne mu defal sa yëfi bopp yoo xam da nga cee jariñee ndax sëñ bi moom yaatu na ku ne mën nga cee jariñoo te doo yàqal sa moroom kon télé yi mën naa bari rajo bari kenn kon di jaruñu fa nekk yal na ko sëñ bi defal barke Cheikhul Khadim ah moo teen aouzu billahi min asheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa mawlana muhammadin yasara lii muyassirul asiiri maxtaaro liya bila masiiri wala lainu li siwaaya mudbira bima ala dahri yadu mudabbara ma tawajjal makaariliya باق عبا بذكره وهو ليا عنه رضيت وهو عن رادي بلا مكاره ولا أمراض رض لخيري جهة الشيطان من طيب الممر والأوطان farra li xayri jihati laynu yasuuqu li xayrina almuinu hadiyati min alilahi wa nabi kulliyati safat wa safatun bi tawfiqu haadil xadulilaamu xadab dayaali ما لهن بعام بدت لي اليوم برب الخيب عاسني ممن خلوا وخيبا لا يتوجه لنهوي مطعم هن مهت مكاري وتعب سادتي